waxtaan professeur Moussa Diaw di jàngale ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ca Ndar waaw yéene bi di xamal ne kay moom professeur kay la mu xam ne moo di loolee dara nekku ci ay yoon la yoo xam ne nag mën nañu caa jaar laas ñu xamal ne nag jamono ji dialogue bi nga xam ne nag président Macky waaw tegu ko daal maanaam mu nekk pion boo xam ne daal da koo bëgg doxal bu jàllee mu daal xamal ne lii tax daal assemblée nationale ñu daal ko ñu nekkee ci kujje gi bëgg nañoo xam ci dialogue boobee lan ñoo nekk nañu ñëw fekke ci dialogue bi daal yëkkati kàddu daal koy jëmale ci opposition bu Sénégal waaw daal xam daal opposition Sénégal lii nga xam ne daal moom la ñu bëgg a nekkee loole nekk na mbir moo xam ne daal mën naa indi ay loo xam ne jëm na ci wàllum yoon bu dee Ousmane Sonko moom Sonko Sonko bi dafay xam ne ne jiite réewum Sénégal dafa teel ci moom Ismaïla Madior Fall di ñu xamal ne loolee ndaa teel ci Ousmane Sonko laa wax ndax amul parcours amoon ci Tambacounda waaw ci élection yi nga xam ne daal moom la génn mu amoon ay jafe-jafe yi nga xam ne nag yoon da a tegoon loxo waaw am na ñu bëri ñoo xam ne nag jot nañ ñoo nekkee ca Thiès te ànd ak Siré ji dañoo ñaaw lu baax jamono ji yàq der gi nga xam ne nag moom la nekkee waaw gannaaw élection yi nga xam ne nag moom la génne dañoo jàpp ne loolee daal defal na ko ki nga xam ne nag moo di Macky Sall loolee tax na nag ñoo ne ñu jàpp ne loolee daal dañu leen ko bëgg a yàqal tribune yéeni kaay di yéeni kaay bugaan dani gi du ñu xamal ne kay jamono ji coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne nag AFP wa maanaam dafay laajte ndax ñooñee seeni mbir mbaadu a jeex élection locale la ñu dënmal AFP ne ne dina am boo xam ne daal danañ ko am waaye ba léegi leeraguñu ko waaye nag bu dee élection yu njiitu réew yi nga xam ne daal war na am ci 2024 yéenekaay bi dañu xamal am ne nag moo di réew mi quotidien moom nga xam ne nag moo di Éthiopie xamal ne kay avion bi nga xam ne daal daanu na am na lu toll ci téeméeri nit ak juróom fukk yoo xam ne nag jot nañoo ñàkk seen bakkan mu nekk musiba goo xam ne nag mi ngi xewee fi nga xam ne nag moo di Éthiopie bu foofee nag bu ñu seetloo bari na ay africain yoo xam ne ñangoon ci avion bi ay sénégalais amul kenn koo xam ne nekkoon na ci biir avion boobee